man duma ma tux cigarette <laughs> soirée waali bañ saxaar si di ma dugg ak bañ a toog ci maanaam foo xam ne dañ fay jëfandikoo loo xam ne bokkul sama sama sama sama diine wala bokkul ci loo xam ne yar nañ ma ci moo tax du ma toog ci taabul yi kenn musul wax ne mus naa gis délégué Amar ci taabul waali mu toog soirée waali mu toog ci taabul ca buntu balaay taxaw jàkkaaroot waali muy way ma am lu may yëg moom mu am lu muy yëg ma génn dem dem ñibbi kon ku dul tux cigarette du jege fu ñuy tuxee kooku boo ko giñee dorog yaa ngi nax sa bopp ndax dorog man mënuma laa wax nii la mel xañ na nag jigéen ji ko wax loolu ndeyam ak baayam ay dorogéen lañ ah si. man jigéen moo ko wax. ah nee nañ de dégg naa de information sax ba ni sama jabaru frère moom mooy def yooyu. waaw sama jabaru frère. ki nekkoon soxna ci ci euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Cheikh Amar moom la wax ni moom moo joxe information. dinaa ci ñëw sax loolu comprendre nga ñu giñ ma loolu giñoon nañ ma fi bu yàggul ay yeneen loolu taxul mu am giñaan nañ ma fi tey ne doroog lañ fekk sama oto waa léegi dorog boobu nu mu mel waa ku sa ndeyeet sa baay di jël dorog kay yaa xam dorog waaw te moom ndeyam at baayam ñoo jël dorog si dama ku sa ndeyeet sa baay di jël dorog yaa xam dorog te moom ndeyam at baayam ñooy jël dorog képp ku ma loolu rek ku jël wax ji nag moom ko yaa ko moom dama ni man délégué képp ku ma loolu sa ndey at sa baay moo jël dorog waaye man délégué. jëluma dorog si internet nag deful dara damaa jàpp ne dañ ko jox information mu dugal ko ah yow bu la joxoon information nga woo ma jotoo ma koy dugal ah bërki démb luñ fi tuumaal accusation lan lañ bind ci waali ne moom ay kon xaw ma nangam loolu dara du ci dëgg kon bu fekkee ne sama jëmm ji lañ tuumaal ne ma dama dama dama lan jël dorog ñu jàpp ma sama oto waa léegi dorog dinañ ko jàppee nit di ko bàyyi muy ñibbi hmm? dorog dinañ ci jàpp nit di ko bàyyi muy ñibbi at ban façon drogue lañ ma jàppee. mais yow da nga taxaw wala dañ la jox. convocation man damaa génnu sama kër gii sax. Ah man ba ma jógee Touba ba léegi génnu ma sëñ Xaadim maa ngi fii lii ngeen ma fekk may def ci laa ne xam nga kañ laa génn sama jour anniversaire bi ma Omaro wooyee ne ma président Wally daa am fu mu ñuy yónni maa ngi nuyu sama jabar di ko di ko féliciter ndax boobu ba léegi defuma vidéo mm-hmm. di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te aar ko te yàlla ju gën maa jubale at moom di wax nag noonu yi dem di yàqat yooyu yëpp di dem ci ay sëriñ di liggéey nañu rek la te xam ne maa ngi yëg <laughs> si. la ñuy liggéey sama diggante sama jabar. Hmm. waaw ku def na ay noonu. kan ak kan aji man ku nekk Sénégal wala bitim réew. déggoo ma ne damaa dangereux am na nekk fii ci réew mi na ñoo xam ne maa ngi leen gis ñu may gis. Hmm. barke Serigne Bamba Mbacke nekk wala maa ngi leen gis ñu may gis ñuy dem di liggéey ma di ma liggéey pour maar sama jabar te mënuñu ci dara ndax man ko ëpp ci mbokk mënoo koo jëw xaaral man man may gisal sama bopp en même temps. seet wala da leen bett. non dañuy dem ci ay sëriñ sëriñ yooyu dama leen xam <laughs> xanaa xamu ne ma ëpp ay soppee sëriñ fii ci Sénégal barke sëñ Bamba te ñooñu ñëpp sëñ Tuubaa tax ñu bëgg ma sëriñ yi ñaan nii maa ci ëpp ñoo xam ne ay soppe leen dañ maa bëgg te yàlla tax ñii dem nag di def loolu nañu nañu gën a dem ndax saa buñ koy def duñ ci am ndam beneen bi mooy giñ nañ ma euh, accusation boobu ne dorog waa léegi ki ma giñ loolu di soxna soosu waaw moom na génn wax ne fan la ma gisat dorog at ban police ñoo ma jàpp tuuma nag yàgg na cim réew waaw moo tax ma ne tuuma yàgg na cim réew Seexul Xaddim mii ñu jóge ci màggalam gi bu yàggul xañ na ay jamonoom daa amuloon whatsapp amuloon site internet rek waaye tuuma yu ne teg nañ ko ko ah suñu xarit ah kon man bu ma xeeboo ci yoonu murit ñu may tegi tuuma dama koy dama koy dékku suba nag xam naa ne na demaat wax site internet ne leen délégué daa ëmb mm-hmm. waaw fii suba dinaa nekk en voilà ma ngi noonu comprendre nga kon loolu aji c'est faux mhm. information la boo xam ne soxna si ko jox sit boobu ba mu dugal ko mhm. soxna su xaj na yàlla dina leeral ay mbiram fii ci kanam incha allah ci kanam tuuti yàggul de mhm. yàlla dina leeral ay mbiram te dinaa leen woo bu loolu leere dinaa leen woo yéen ñëpp ngeen ñëw fii ñu leeral ko waaw. si quand même jéemoo def yenn business peut-être yu yu yooyu ba tax mu lan moo tax mu xool la quand rek jiñ la lool jéemoo def business. business lan. man damaa xam ne dorog mel xanaa da xam dorog ah mos a laal dorog yow ah léegi lu tax nga naan jéem da ngaa mos a dégg romb délégué ñu ma ngay business dorog wala ma ngay xam dorog ku dul tux man du ma tux aji yow xam nga ci man lool doo naar fekk nag aji xam nga ne man damaa licite licite licite lañ koy wax hmm? giñ nañ ma fi suus mooy metti giñ nañ ma fi yàmbaa giñ nañ ma fi naan sa wódi mu naan mu naan naan sa wódi mu naan gulu gulu det sa xoloma lan gulu gulu giñ nañ ma ko fi barke Serigne Bamba benn bis damaa def interview ñàkk tooy xepp fekk fi ñu nekk amul kilim xaw ma nanga man nanga wala li ma sol bëri ñu ni sa waay daa suus bëri ñu ni sa waay daa fekk ne ñàkk nelaw moo jàpp at ñëw sonn ñoom maas attaqué ma comprendre nga mhm. ñu giñ ma fi loolu waxuñu fi ñu ni sa waay day naan sa vodi takk sa takk sa simu simuk di gulli gulli di dawat moom yooyu gis nañ ma ko fi way waa ji way bi mooy ci man la ko déggee way wi ci man mii la déggee gars yi giñ ma loolu naan sa fodi mu naan gullu-gullu takk sa filing sim di àndoon moom di dem giñ nañ ma ko fi yow Kalidou est-ce que mus ngeen ma jee gis yow Kalidou est-ce que mus ngeen romb yéen délégué ñu ni ma ngay tux fee wala ma ngay toog grand place waa léegi man awma grand place awma xarit du ma dem fenn du ma seeti fenn wëral ndakaaru ba ndakaaru daj nga ñu nga laajte fan la délégué di fréquenté doo ko gis waa ko amul fréquentation amul xarit amul kenn kooku nan lay demee di jaayi dorog wala kooku nan lay demee di dorogewu te sama kër samay nawle laa fi dëkkal sama mag ju ma bokkal dayet bàyyi moo nekk ci beneen néeg bi soxnaa moo fa nekk at doomam ji ma tuddee at bàyyi xaadi mu ndaw doomam ki mu tuddee sama bàyyi sama rakk petit sama nawle la sëñ mu peex mii sama kër lay xëy di ñëw di toog ñuy waxtaanee sëriñ bi di waxtaanee mbiru àdduna waaye léegi sama nawle yi ma dëkkal de xanaa buñ ma gisoon may dorogé wu ñoom ñoo may njëkk a ngir bëgg ma génn ci buñ koy dénoncé de du ñu yem ci dañuy dem ci waali xam ne rus ko ñu ñëw ne ko ah sunu waa ji dañoo gis ci beneen moom beneen melokaan bu ko defee waali ne lan la ñu ni ko dañ koo gis muy dorogé wu te du yow rek la rus xañ na boo ci waxee moom bàyyi ko su boobaa ne yaakaar naa sama waa kër dinañ def loolu bu ñu bëggee ma baax wala buñ bëgg buñ buñ bëggee ma bon nag kon dañ may bàyyi ci li ma neex wala lenn ñu defaat délégation dem ci Cheikh Amar est loolu am na. Hmm. aji dañuy waxtaan dëgg rek nañ bàyyi gor bu setee ñu koy tuumaal barke alxuraan jii ma téye sama loxo bii bettu ñu ma jàpp ñu ma dorog musuñu ma jàpp musuñu ma wax waxu dorog jëmale ko sama jëkkati ko te ma ma gëm quand même li nga alxuraan laa doon jàng damay jàng ba yem ci ya yaasin ngeen si billaahi wallaahi wa taala barke alxuraan. tournée li jàpp ñu ma ci dorog mosuñu maa wax waxi dorog mosu maa tuumaan ci affaire de dorog xaw ma ko sax. am na solo ayca euh, moom nga tudd. fala falaay ñëw. Ah, waaw mi nga tudd falaay ñëw parce que yaakaar naa li nga wax ci wàllum dorog lépp leer na kenn convoqué wu la yaa ngi woon sa kër quand même. alors dafa am leneen loo xamante ni dañu ko nemmeeku sa diggante ak Cheikh Amar lan moo ci xew. dara xew ci damaa giñ sàcc accusation de de vol ah way dara xewu ci de dañoo yow wax nañ leen ko information boobu yëg nga ko ñu ni man damaa dem di cambrioler kër Cheikh Amar moom mu ànd soxnaam soosu ba pare gëm ko di wax ne man damaa cambrioler këram mais nag duma ci mos a ñaaw ndax man Cheikh Amar sama frère la sama mag la na ma meloon démb laay mel ci moom ku ko laal gis ma du ma amul lenn loo xam ne luy ñaaw la sama digganteen moom tey laa ko gën a bëgg xam naa ne àndutoot sagoom waaw si si bu àndutoot sagoom fu nuy waxee ne délégué sàcc na nangam day taxaw ni déedéet non dama ni fu ñuy waxee ne délégué def na nangam moom day taxaw ni déedéet xam naa Cheikh Amar ñàkk àndut sagoom nag moo waral yenn yi di am. ndax daf koo dëggal. si dëggal na ko waaw. da ko dëggal mm. waaw. ci lan la ko dafa am lu manqué këram wala. waaye yow këram këram. waaye yow waaye yéen xam nga giñ xam nga giñ nañ ma fi ne man maa jël ay audio partagé ko ah du loolu giñ nañ ma ko fi maa jël ay audio ci téléphone Cheikh Amar partagé ko wax nañ ma ko fi noo waa ma ngi noonu waa léegi ojo yooyu ci kanam dina leer moom loolu moom xoolal aji barki sëñ Bamba dinaa leen waar ngeen ñëw loolu moom yëpp dina leer mais je suis fier ci Cheikh sama sëriñ la sama mag la sama kilifa la sama lépp la tey laa ko gën a bëgg tey laa ko gën a fonk waaye nag il faut très attention il faut très attention parce que jigéen dafa doy waar yàlla ñu yàlla musal ci jigéen ju bon mais Cheikh Amar nit ku baax la kenn gënu ko te tey laa gën a mën a défendre ah. mais nag wax bi métti na ma torop accusation de vol pour délégué Amar bañ woo site internet yi ne leen délégué daa cambriolé kër Cheikh Amar yéen nag ci seenu mbaax ak ci seen xam nga ngeen ma xam ngeen bañ na loolu dëgg man leen nañ ma tuddee Baye Jinne booy Jinne numéro 2 cambriolé de gang moo koy def Baye Jinne booy Jinne léegi tuddee leen ma bàyyi Jinne numéro 2. li ma jàpp ci kàmbur yooyu mooy gang moo koy def. gang mooy lan mafia boo xam ne ñëpp ay bandi lañ te ba pare li ma ci gën a métti jouru màggal lañ wax hmm. waa aji jouru yàlla àtti na ma jaam ñi. ñoo yendu. ma ngi noonu Maad Waly Seck yendu sa waay a ngi nii ñoo seen. Ali Ali jouru màggal ngi déggante téléphone ba nga war a ñëw sama kër. waa léegi ba ma àndan waali ba waali yeeweeku dem Ndakaaru ma tourné waat samay ondo ànd ak xaadim beexan ñoom petit convoi bi gis nga ko te convoi boobu yëpp oto yëpp samay oto la convoi bi topp waali yëpp oto la oto waali dong laa ci moomut 5 millions laa génn ci màggal gi bidse su may jëfal sañ Tuubaa duma ko wax waaye dama dama koy wax ndax liñ ma wax nee nañ jouru màggal laa kàmbur yow la kër Cheikh Amar kër goo xam ne dara amu fa kër gu vide dara amu fa dara kër gi ci Tuubaa dara amu fa jouru bi waa li ñibbee ma dellu sama kër bàyyi di yëngal mbana yi takk sama ndigg di togg ceebu jën ak ceebu yàpp waa kooku nan ba na laa génne bis ci màggal gi Cheikh Amar dërëmam joxuma ko di Cheikh Amar mosumaa jox dara di mosumaa may billaahi wallaahi wa taala barke alquran Cheikh Amar mosumaa may téeméeri junni baa mu yëkkati 100000 francs bu mat may ma ko bu topp di am maa war a topp man du ma hypocrite du ma kenn ma mus a jënd mus a jëndal oto sama àdduna muy kun ñaar ñaar kun naan Mouhamed moomu njëkk a may oto Mouhamed en 2016 Wally Seck moo ci topp ana vélo bi ma jëndal kon bu nekk fii di ma jaxaseet sénégalais yi ngir polémique ngir di yee ay affaire man je suis fier man kenn ku la abali bët moo lay xabal moo lay xoolal fi ngay aw te man kenn abalu may bët samay bët maa ko moomal sama bopp dëgg nag ci la ma ñëpp di rey jouru màggal lañ wax ne damaa cambriolé kër Cheikh Amar yéen ñii ñu woo leen ne leen délégué daa cambriolé kër Cheikh Amar. mais lu tax Cheikh Amar nangu ni loolu loolu am na quand même bu fekkee defoo ko lan moo tax mu nangu ko. waaw moo tax ma ne la xam nga gëlëm dafay am waaye bu ximmali ko rek dina leer hmm. lépp loo gis gëlëm day am. mais mën na ma xamul looloo jaaxal ñëpp. waaw sëñ bi yow tamit kii dafa xamul ci jigéen xanaa. Hmm. aji dama xam ne lu tax yow Cheikh Amar sa diggante ak moom muy sa frère ñu wax ko rek mu nangu est-ce que tamit du délégué dafa mës a def lu mel noonu xam lan mooy jigéen waaw kon jeex na ay pexey jigéen lu ne la wax ju yegg nag dafa ko moom aji fii fii ki fan laa wax du yee semaine bu génnee tamit beneen semaine bi ci topp di ngeen mhm. <laughs> ci beneen façon ñëwin boo xam ne dëgg da ngay naan ma délégué nag yow yaa am dëgg waaw d'accord li ma bëgg a xam mooy euh, ku xam sa diggante ak Cheikh Amar xam ni mu mel mu nekk sa frère tey ñu ñëw ne la sa rakk sàcc na nga ne waaw ndax délégué daf ko mës a def këram wala dafa mës a def lu mel noonu ba tax mu am adiya nooru waaw adiya keefi da a def nga ni da nga mës a kàmb yoole euh, Cheikh Amar wala da nga mës a jël alalam te yógu ko ba tax ñu nangu ñu wax ko mu nangu c'est une vraie c'est question bu ma am solo c'est une question euh, pertinente man su dee jub gëm naa ne réew mi Ousmane Sonko Diomaye sax leeru ma waaye gënuñu maa jub waaw aji bu ma doon sàcc heure bii milliardaire lay doon aji dama daan liggéey ci ceeb ay conteneuru ceeb ay botoy ceeb di wàcc man ma yor responsable bi <laughs> nekkat ay partenaire ay indien sama oto un mi deux milliards cinq cent millions fanaan na ci une semaine beneen bi un milliard et quelque fanaan na sama oto deux semaines xaalis bi war a dem Dubaay xam nga Dubaay boo fay boo yóbbee Inde du dem Inde direct day dem Dubaay jàll. waaw mais kooku bu doon te xaalis boobu amul trace liñ naan trace amu ci maanaam bind ay nangam damaa jaay ceeb ñi ma jaay maa ngi koy nuyu paake bi di jaay katu ceeb bu mag fii ci réew mi moom ah, Bokar Samba Dieye moo ko yar Bokar Samba la tudd ah. moom laa daan jox ay 18 conteneurs ceeb xam nga amoon nañ ci problème ba benn waaye bu na Aline Penda Diouf ne surtout sëñ Thierno Diouf laa bàyyi la ñëw triant ma sàcc ma ñu yóbbu ma ci yoon waaye léegi petit mii laa àndal at sama gars yi wut ay gardien teg leen fa jox leen caabi foor laa luye woon Badara Gadiaga mii nii ñëw na ci sama entreprise bëgg ci sama ceeb bi at ay kilifa yoo xam ne ñëw nañ sama entreprise bëgg ci sama ceeb bi ma jàng seeni i mbir tey ca duñ ma bàyyi ma fen waa léegi aj sàcc kay yaakaar naa ne du du sàccu ja jooja jamono ba tey kër gu dara nekkut boo xam ne amul 15 amul dara dem naan dafay kaamur yolee sëñ bi wax ji yegg dafa ko moom man ku seet wécc laa sama waajur gi jurut sàcc sama waajur jurut tuxkatu dorog dorog dañ koy tux mm-hmm. ah waaw sama waajur jurut tuxkatu fóonkatu dorog mm-hmm. li damaa lisit sëriñ Saliou def ci ñun li ñu mel mm-hmm. ñu ay nit ci taalibe sëñ Tuubaa yu dëggal nag te loolu kenn mënu ko dindi ku bëgg am nit kuy jaay dorogat wala nit kuy kàmb doole nga dem seeti say mbokk. duma ma topp kenn ci yoon man aji fii nga toog ba taay man la man du ma porte plainte ku yàlla ma porte plainte kenn lu waay def boppam mm. bu doon loolu sëñ tubaab fayantoo <laughs> te dina ixam jëm yaxal waraa yaa haadiyan radaa yërëmal na solo dañu ay murit lañ dañoo war a roy ci jëmm jooju lu hmm? murit man bokk murit laa boo xam ne du ma fayantoo waaye nag ku ma woo ku ma xori la nag ku am fitu am fayda di ma dàggasante ci internet bi na nga xaar toog te déglu sa réponse sa xam ne naa la tontu waaye duma ma porte plainte A du ma porte plainte B.